siyaar euh, di rafetlu teewaay bi nga xamante ne teew nañ ko fii ci open press Jackson mu war a laaleeg naaru sokaas muy ndaanaan ci làmm làmb ji wàccaay bi yàgg na loolu ñoom ñaar ñaari xale lañ wala boo xale mag wala loolu yëpp dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti Jackson mu ngi nii tey ñu ngi la fekk ci sa gox ñu gis ganaan liiru Diane gis waa Géejawaay gépp ñëw topp la ngay préparer sa diggante ak ki nga xamante ni mooy naaru sokaas wàccaay bi ci fu mu tolloon ak wàccaay bi fi mu toll nii fan nga toll. waaw onze billah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si yéen bi di sant suñu ñaari waajur bu baax di ñaanal suma yaay fu mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jógee di ñaanal xama mère Awa ak père Bakar Seye yàlla na yàlla yërëm taxaw leen àjjana di ñaanal suma sëriñ sëriñ Mouhamadou Moustapha Sy yàlla na fi yàgg lool dëgër ak capitaine am maam Cheikh di ñaanal ñëpp di jox kàddu gi leedu jaan sama père sama lépp waaw mu ñem si tur liiru mooy njëkk a wax. waaw liiru looy wax ci xale bi tey. asalaamaaleykum yéen journalistes si maa ngi leen nuyu di leen sant di gërëm ak ñi fi teew ñëpp at waa Géejawaay gépp ah, jili man li may wax bariwul ñun Géejawaay dañoo am ay espoir yoo xam ne tubaarikàlla macha allah puus mu takk puusul mu tàkk kon ñëw leen ñu puus léegi au début su nee ci kanam ku ci ñëw nag ah, ah dina met si yow li ma bëgg ñu ñëw jàppaleel ma xale bi soxlawul xaalis nañ ko jëndal ay billets mu feesal ibsaat ibam maar ndax ñun géejawaay la ñu am géejawaay la ñuy tiitaroo genre espoir yu mel nii tey jii fi magam yi nekk war na faa àgg fi Balla Gaye àgg ñoom la dëgër àgg ñoom guy ga àgg moom war na faa mën a àgg comprendre waaye il faut ñu may ku leen doole xam nga lan la ma laa gën a bañ man ci mbooloo xale nekk di débuté ah doo ko xool nit bu mu commencé am tur àgg fenn fi rek ngay doog a ñëw tubaari kàlla masalla kii su ko yàlla la fa lay cat musal ko ci saytaane nga dégg Balla Gaye dégg fa ñoom la dëgër dégg ndax ndax tubaarikàlla masala dafa yaru xale bi dafa yaru dafa yaru yàlla na ko yàlla fa cet tey jii ñoom fils de la ñoom ñëpp ñoom fi teew c'est normal ndax xale bi moo leen ko ji gis nga ma la damaa bëgg autorité yi nekk Géejawaay ak Maguette Seck booy ñaar mi ngi fi damaa bëgg autorité i nekk Géejawaay ñu ñëw jàppale ko dimanche mu ñëw feesal arène nationale arène nationale la lamb ji dimanche dama bëgg mu ñëw feesal ko naar soo dansee bënal kii xelal dafa nekk ci yoon naar euh, moo tabaarkalla moom ay kiyam jeex na pare maa moom a yem naar am na fu ma jaar moom comprendre nga xam ne nag sama rakk lay bëral sama doom lay bëral te dimanche dina xam lépp la du dara naar bëri na ndar ndar la nu bëree ma nag moom mu daan ma mu daan ma mu daan ma mu daal léegi nag su demancé la xam lépp dëgg la xam nga jaar na feek maar la maar la fayul ma des na bii te bii mooy gën a métti nag ndax kii xale bu nekk si yoon la kaar kaar kaar kaar macha allah bul ñu catu dañoo dese ay combat ah yu bëree bëri bëri bëri bul ñu catu bul ñu catu kuf ma la kuf ma la laaxoon naa la jumaay Touba waaye li ma bëgg autorité Guédiawaye laay ñaan soyez laissement la Diop directeur LONASE ah ñoo jàppale xale bi tubaari kàlla te ku la wax di nga ñëw Aziz Ndiaye ñëwal Modou Boussa Ndiaye ñëwal ak si ah, Sidaat Diop ah ah, ah monsieur le maire Aliou Sall ñoo axwee dara ñoom Malick Gakou ñëpp dañoo war a ñu jàppale xale ñun géej la ñu am géej la ñuy tuuturoo ku ñu yëgul nag yëguñu ku ñu yëgul yëguñu la ñun ñi mënoon fa ñu jëm duñu ragal duñu ay tàppe gis nga xale yii man maay seen avocat ku leen jàppalewul ah man nga koy digaal du yaag ñoom autorité yi politiciens yi maa ngi leen di xaar. on verra ça Balla Gaye 2 dina ñëw waaye nekk fi dafa voyage. waaw waaw kii ñëpp ko war a jàppale ndax méritoonu xale bu yaru la yàlla na ko yàlla fa cat dimanche yàlla may ko dem séddu maa ngi ñaan politiciens yi nekk géej yëpp nañ ñëw jàppaleel ma sama rakk ji waaw loolu laa leen di ñaan jërë ngeen jëf. ñu nekk ci wàccaay bi combat bi yàgg na lool. wàccaay bi nu mu demee ñaata séance nga doon entraîné par jour ak sa adversaire waaw pare nañ ko comme ni ñu waree pare comme yeneen combat yi rek ñooy liggéey ñaari séance chaque jour ngoon mat naa lu dem géej ngoon ñu contact instant bi pare nañ waajal duñu dañuy xaar bis bi rek yàlla mu dara tawul xanaa yàlla may ndam si kàttanu yàlla. ñaari sukaat mag la wala xale. waaw ni ñoo ko jàppee may man xale laa ko jàppee. dama jàpp sama di ba jour waa dinaa ko wan ne morom laay bëreel lu ma doon préparé du ma si wàññi virgule mhm. tey laa gën a mën a préparé préparé xale tey laa gën a mën a xale ñëpp xam nañ ni ndaanaan la bis mënu koo dépassé te bis bu ñëw da koy gérer moom naaru bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex boo doon moytu ci moom lan ngay moytu waaw loolu moom dëggal moom ndaanaan la bu bàkkoo mu neex mu bëree mu neex mais man amul may moytu si naaru Sogas du si bëri a jëlee ko fa dem sama yoon. bu kattanu yàlla loolu laa gëm. lan moo la boole ak naaru. waaw naaru sax damaa gën Pape Ndoye ma ñu may wut adversaire amu ma ko ñu dem seeti ko waaw mu nangu ñu bëri loolu ñu boole mais nekkul maa ko taamu nekkul moom moo ma taamu laa maa ñu boole daan naa samay morom dama war jëm samay mag. Mhm. waaw samay mag laay bëri nii ñaan naa yàlla na réussir si. incha allah yoon jëm incha allah. Mhm. ñaar yëpp lu ñëw rek fekk wi te ma xaar mu dara lépp maa koy incha allah bëgg naa ko daan du ma ko gaañ. bëgg nga koo gaañ te du. bëgg naa moom sañul xeex. ñemewul lool sax non ñemewul xeex ak man moom jàkkaarloo ndax. bëgg nga ko ah. euh, daan te waalo waalo la quoi xam nga rek. dama dawal yërmande. naar la yàlla na ma yàlla may ndam. waaw ma daan ko jëlee ba du ma ko gaañ. naar la du waaw waaw naaru dugg géejawaay. si sama ak liiru duggaat géejawaay. bii mooy troisième fois. nga génn ci Pape Ndoye. ngay ndaanaan muy ndaanaan. comme li nga wax rek da ngaa say moom léegi say mag ngay bëre sa qualité bëre a qualité bëre naaru nan nga mën a def ba daan naaru dimanche incha allah lan lañ mën a xaar ci yow. non li ma doon bëri du ma si wàññi firgël damay ñëw attaqué dóor bë daan incha allah loolu laa daan bëre te loolu du ma si wàññi dara naa arbitre bi waaye man dama leen tardé sa jour ma wax ko boo leen ñëwee arbitre bi suuflee maa ngi si kawam du tardé arbitre du ma tardé journaliste si kàttanu ma yàlla suturaal nag moom mu yor ndam ti ndam yomb ko yàlla ma ko yombalal incha allah dimanche lan nga wax naaru Sogas ak supporters yi muy àndal ak yow tamit say moom bis na ma dimbale rek moom tamit mu mobiliser waaw waaw ñooy waayal daal di wax la 14 woo ñëpp. di woo waa Guédiawaye gépp di woo waa Boune gépp waa Rue 15. di woo waa Diamaguène waa Guy ga ñoom Mor ñoom Tafa Kara woo ñëpp di woo gaay ñoom Ahmada ak gaay mi di woo waa Cambérène ñëpp xam nga woo ñëpp daal ñu ñëwal ma si ak waalo waalo yi Rungaas maa woo ñëpp waalo waalo képp kuy waalo waalo maa lay woo Eh, si combat bi. mais xam nga ne revanche ngay bëri. waaw. man jàppee ma mbir bopp laay demee. chaque jour. jàpp naa sama combat bopp laay bëre te dinaa wax daan si kàttanu yàlla. xale la ki day màgg. waaw ñu ay tout tàng nañ rek dañuy dañuy entraîné xam nga centre ñu sax ñun ñoo yokk nañ poids. xale la centre ñu sax yokk nañ poids waaw. xale la day màgg. nee na bi ngay ñëw daa gisoon poids bi nga yor. actuellement nii da ngaa yokk poids yokk bi ngay yokk poids bi lan la. waaw ñun centre ñu sax yokk nañ poids si ñun xam nga entraîné nañ comme ni ñu daan entraîné te en plus tamit ay tout tàng nañ dañuy liggéey te ñaan nañu yàlla bëre ay ay ponkal. ñun suñu bët séntuñu woo séntuñu woo fii nii. ñooy ñaan daal yàlla mu yar dara daw ma ñu ndam incha allah. waaw. mooy li ma wax chaque jour rek ñun chaque jour suñu bopp nuy demee. suñuy mbiru bopp nuñuy bëree nuñu ñu demee lamb bopp la luñu ko kenn suñu bopp nuñuy bëree waaw ma waroon daan trompo daan na ko xam nga ñun a bëree ma ko war a daan dinaa ko daan incha allah waa léegi Jackson kon naaru lan lan ci combat bi dimanche incha allah lan la ci am naar daal lu fecc waaw naar combat bi la si am daa xulaa fecc sax yow daa xulaa fecc répété gis nga lu ma répété fii nii répété di woo ñëpp xam di woo Cheikh Seck xam nga maa ngi koy woo bu a baax di woo président Lat Diop monsieur le maire Arama Sarr futur maire Arama Sarr woo ñëpp di woo Lat Diop président Lat Diop maman Aminata Niang maa ngi woo bu baax a baax maa ngi koy ñaanal taw fii tamit maman Aminata Niang xam nga di woo tamit Arama Sarr di woo tamit xam nga di woo waa Kona yi waaw waa sanc bi woo ñëpp di woo tamit Fallou xam nga Famar maa ngi woo sama. eh Jili ñëwal fii. Père Dora Père Dora. Ah, ah, ñu gis la hmm. nga jël ak Narou Sogas ak léegi joxoo loolu hmm. gis rek Narou Sogas tey jox cër mosuma ko manqué respect du ma mos a manqué respect non non nu ma daan bëre combat loolu ay bëre waat combat bi wàññiwu ma si dara yokku ma si dara Narou Sogas dama koy bàyyi xel xam nga xam naa ne mbëri comme yeneen mbëri waaw tey laa gën a jox cër bu jour dama koy jox cër incha allah xam nga xam xam nga xam nga sama. waaw salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar ñëpp ah. di leen ziar yéen journalistes yi di ziar képp koo xam ne fans euh, Jackson nga di leen jégalu bu baax a baax xam nga sama doom nday day préparé komba muy Alioune Seye 2 waaw fa laa nekkoon xam la nekkoon ci yenn bagage après fi lañ dawee ñëw nag mais ñu ngi jégaluwaat baax a baax a baax te Jackson moom suñu rakk la suñu lépp la mu nekk nit ku baax. kon donc bu amee bësam dañ cee war a teel a ñëw xam la jàppale ko ci dooleel ko ci bësam bii nii mais ñu ngi jégalu ñëpp di baalu ñu hmm. hmm. bëri koo xamante ni moo hmm. xam nga euh, gaa yi dañoo réeré mbir ci affaire Jackson defe naa ne Jackson mi xam naa ko bu baax te su ma la waxee ne xam naa ko barki Serigne Babacar Sy xam naa ko kii moom xam na man xam naa. ay xaritam xam nañ mais man mii ko doon prépare xam naa ne ndaanaanu làmb la mais leen rek laa koy conseillé te wax naa ko ko moom xam na man xam naa nee naa ko naaru sokaas bu ko muusa xeeb ci àdduna parce que dafa nekk mbër bi nga xam ne day këpp yalwaan mais kii kii nii ba yàlla def bañ duggaat ci biir géew gi di ngeen gisaat beneen Jackson ci kàttanu yàlla njëkk wax ne man dama ko xam dama xam jikkoom xam nga nit koo xam danga ko yar xam jikkoom ci dama ko xam bu baax xam naa lu mu capable lu mu capable jaay prek dëgg ngeen toogal nii mais ci biir lépp lépp lu ko ëmb lépp lépp mënu ko wane ci mbedd bi nii. mais ci biir géew moom ah. maanaam géew la kii ah. non du ma wax bandi géew la. kon mais lépp la en tout cas daal gaynde la ci biir géew man maa leen ci mën a wax dara gaynde la su ma la waxee gaynde la rek jàpp na gaynde la ci biir géew. ak bëre lan moo ci avantage. Euh, waaw muy làmb. waaw. kii lépp la mën kii fekk naa ko ba waalo ba bëreegul sax fekk naa ko ba waalo laalo la wax boobu ñëwagul sax Dakar. barki alxuraanu karim mu ngi ñii taxaw bu nekkul dëgg damay wax nekkul dëgg ba muy nekk xale bu ndaw di bëre mbapat di toj waalo sama kanam maa ngi fekkee maa ngi toog kon donc kii bëreegul wallahi i su ma la ko waxee gëm ma lii muy def nii yëpp waneegul boppam te dina wane boppam nañ leen dawal ba ci kanam. kon Naaru Sokaas am na problème Naaru Sokaas waxuma la am na problème de yaa ngi dégg mais mu ngi bëre koo xamante ne. moom ci Daaru Sokor waxuma la am problème weesu na am problème waaw. Ah. en tout cas ñu ngi koy ñaanal ah ñu ngi ñaanal suñu rakk Jackson yàlla may ko wér may ko gudd fan ci barke Seydina Muhammad yàlla may ko ci ndam di ñaanal suñu yaay ji baax mooy yaayam bi génn àdduna ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana di ñaan képp koo xamante da ngay tiitaroo Jackson yéen waa Waalo yéen laay waxal amoo leen ku dul Jackson yéen waa Waalo amoo leen ku dul ñu ngi leen ñaan ngeen jàppale ko ngeen ñaanal ko bu dee li ngeen wot dëgg la ci yéen ngeen bëgg Lac de Guiers 2 ñaanale ma ak Jackson mu daan combat bi yàlla may ko ci ndam maa ngi woo autorité yëpp ah autorité yëpp Lat Diop Alioune Sall ah ñëpp ah euh, Ahmed Aïdara suñu mag suñu xarit ah ñoom ñëpp bàyyi mbër yëpp mbëru géejawaay yëpp na ko ñëpp ñaanal ah. Balla Gaye 2 ah maay wax nii de waaw Lac de Guiers 2 ñëpp ci biir ah ñoom ñoom ñoom ñoom saakees ak ah, ñoom guy geeg ñëpp waaw Modou Modou Boussa Ndiaye waaw Modou Boussa Ndiaye Aziz Ndiaye Massata bàyyiwuñu kenn daal na ñëpp ñëpp képp koo xam ne jàppale mbëri mag yi géejawaay nañ jàppale Jackson ndax mbëru géejawaay kii bokk na ci relève bu booy bi yàlla na ko yàlla may ndam ci barke Seydina Mohamed. waaw lan la ngeen lu mu wax lépp dëgg la. suma mag la suma lépp la. la suma xarit la suma lépp la. man moo ma njëkk a yóbbu saal ni ma entraîné la. la guerre moo fayal saal ni ma entraîné kon man ama fayam. nu ma mel si làmb rek moom moo def moom laa daan àndal mu daan lépp ba mu daan lu mu wax ne dëgg na ma waar ma ne tout di bëre ma bat. maa ngi sant maa ngi seeg sama mag la suma lépp la. moom tamit woo naa ñëpp xam nga di ko mu woo ñëpp moom tamit. salaamaaleykum salaamaaleykum.